mais euh, Biti Biti Biti Diouf xaw nañoo raw tuuti parce que mu ngi wax dans ses dans ses propos robotique. oui ça veut dire que ñu maanaam ñuy liggéey ci wàllum euh, ingénierie ñi di def ci euh, développement site ñu ngi en avance peut-être que. ñoŋagul comme ni nga xamante ni peut moom lañ ko bëggee wala yeneen réew yi mais ñu ngi avancé on espère que ci technologie yooyu noonu di si quelques années ñun aussi au Sénégal dinañ ci jot et Wille j'avais beaucoup de questions pour elle par rapport ak euh, programmation yi ni ñuy créer site web est-ce que ñoom ñooy defar conditions yi comment ils pour mën a teg euh, en place benn site. dafa mel ni elle est revenue. on ah. espère que cette <laughs> wi jeex na mais très rapidement. oui euh, Betty ñu ngi lay nuyuwaat après benn interruption bu amoon dû à quelques problèmes techniques. Mhm. sama question wala sax ci laaj bu Fatou Sidibé Sidibé bi <coughs> yéen nan ngeen di def. def bay euh, créer ay site ak tamit euh, nan ngeen di def ba ñoŋal ce qu'on appelle euh, visibilité entreprise bu ko defee entreprise bi ñëpp xam ko ñëpp mën a imprégné wu ci moom. ok yaa ngi may dégg instant bi. Mhm. voilà bon. donc pour defar ay site comme ni nga ko waxee instant bi da koy bon comme ni ngay làkkee wolof léegi ni man ma di lay dégg en fait ñun noonu la ñu ay langage de programmation comme Java wala Python ak lenn lu mun nekk pour mun a bind en fait suñu instruction à la machine pour que machine bi di comprendre li ñu koy wax et di def loolu noonu. ñi hmm. ngay gisee application benn partie bu nekk bi nga gis ci application bi que mu nekk benn bloc wala benn bouton boo bës lépp loo si mënti gis benn instruction bu ñu jox machine bi la à ce que mu defee nekk noonu. loolu noonu yëpp si la ay langage yu ñuy utiliser comme yow ni ngay làkkee wolof noonu la machine bi moom si jëm boobu amee langage boo xamante ne ni moom moom la comprendre en fait pour ko euh, traduire exactement à personne. loolu la ñuy def en fait pour defar ay application wala ay logiciel ak lépp lu mu mën ci nekk maintenant pour ce qui est de la visibilité en fait de euh, l'entreprise il y a beaucoup de moyens en fait de de de d'avoir cette visibilité là les entreprises comme ni nga ko waxee am na léegi ay community manager yoo xamante ne ñoom moom la ñu am pour mun a gérer seen communauté en en ligne bokkul dara en fait ak euh, programmation euh, application wala benn site web parce que programmation application wala site web benn pàcc kese la en fait si mun a am visibilité wu entreprise bi parce que entreprise dina am ay réseaux sociaux am yu muy am am ay publicité am peut-être yu muy def en fait comme euh, publicité bu mun a am à la télé ak lépp c'est ay processus en fait yu yu ñuy mettre en place sur le digital en fait pour mun a am visibilité wu entreprise bi c'est pas que en fait programme programmation, il y a le community management, il y a en fait le social media management, il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites en fait pour que l'entreprise ait une visibilité normale en fait dans euh, le digital. ji en ce qui concerne application yi comme tey benn entreprise bëggoon a am euh, application mobile wala application boo xam ne moom lay euh, liggéeyee est-ce que entreprise bi moom moo leen di jox données yi mu bëgg mu nekk ci biir wala da leen di expliquer moom li mu bëgg yéen à votre niveau ngeen créer ko wala comment ça se passe en fait parce que xëy rek gis application xëy gis ni lii application entreprise bi la c'est simple mais comment ça en fait entre yéen <coughs> <coughs> <coughs>

association là wala à ce projet là boo xamante ni qui va gérer le groupe de dev wala groupe groupe bi nga xamante il y aura pas peut seulement des devs il y aura des testeurs il y aura des gérants de sécurité yoo xamante ne ñooy gérer que en fait euh, application bi mën a sécuriser normalement développer di di développer normal et les testeurs qui vont vraiment tester et ce chef de projet là moom mooy def en fait topp application bi wala projet bi ba mu egg fi mu war en fait ce cahier de charge avec les fonctionnalités xam prioriser ces ces ces ces ces qui mooy def lii qui mooy def lii il y aura des réunions qui sont mises en place par exemple en fait il y a ñuy utiliser agilité benn méthode de travail la boo xamante ni dem ay réunions yu def tout au long du projet yoo xam dañuy teg ay sprint sprint boo ne nii da koy da def benn itération de ne lii lii laay def si temps d'habitude les gens le font dans deux semaines wala nee na pour ceux qui utilisent l'agilité ils se disent lii ak lii laay def ku nekk alloué la tâche yaa nga def sa tâche fonctionnalité bi nga liggéey si def ay réunion pour voir si ça a marché si ça a pas marché quel a été le blocage qui a été fait euh, et s'il y a des problèmes nga jéem a résoudre ces problèmes là avec d'autres personnes de ton équipe. après avancer ndànk ndànk par itération jusqu'à que ça, se termine en fait jusqu'à que fonctionnalité yëpp ñëw. Très Alors moi j'aimerais juste savoir euh, Betty ci wàllum toujours euh, on va dire codage da nga Sénégal suñu site yëpp yu ñu utiliser c' est codé ou bien c' est juste yi ñuy jaar. Euh, waaw y' a beaucoup de développeurs qui sont au Sénégal yoo xam ne dañuy codé. beaucoup de il a beaucoup de au Sénégal ici am na ñoo xamante ni par exemple ñi nga xam ne ay site e-commerce kese la am ñooñu des ñu utiliser ay ay logiciels comme WordPress. Hmm. ñoom daf lay dafay gën a gaawal affaire bi parce que y a beaucoup de choses qui sont générées bu ñu teg ay bloc di teg lii laa bëgg lii du soxla muy codé mais y a beaucoup de développeurs qui sont là yoo xam dañuy codé normalement comme tubaab bi ni ñu koy defee parce que tekkul bi kese ñooy codé. comme ni ñu ko waxee nii rek FM monde digital ni mu demee instant bi euh, les cartes sont redistribuées même même atout nga xam ne tubaab moom la ñu am donc quand il s'agit de d'utiliser les mêmes technologies ñun on utilise un peu les mêmes la preuve en fait instant bi ngi ñu le phénomène de brain drain boobu am mooy la fuite des cerveaux mooy que en fait on a des gens qui sont vraiment intelligents qui ont les compétences mais que en fait tubaab bi ñu ngi Parce qu'en en fait, euh, ils ont les compétences qu'il faut. Donc, ce qui montre qu'en fait, que tout, euh, Sénégalais, filles, en ce moment, nous avons des nous nous connaissons comme toi, nous connaissons. Donc, ne pensez pas seulement que nous avons une application, ils codent normalement comme les développeurs français ou européens le font. Justement, avant de nous c'est ma dernière question. Nous avons été dans digital qui Sénégal. Mhm. c' est un peu en retard on devrait war nañu war a mën gën a avancer peut être que l' état devrait peut mettre un plus de de de de de choses pour aider et que aussi les femmes ne sont pas vraiment là dedans il y a il y a des gens qui essaient d' aider ñu ngi jéem a ñu ngi jéem a teg ay affaires di jéem a. Euh, euh, teg ay initiative pour aider un peu jigéen ñi ñu gën a dugg si affaire parce qu'on dit c'est pas benn euh, écosystème boo xamante ne jigéen mën na si évoluer très très facilement parce qu'il y a le poids de la société et tout donc euh, il faut que ñu accompagner leen teg ay initiative pour que jigéen ñi en fait mën a dugg intégralement dans le dans, dans le domaine là et ça j'en parle parce qu'on est vraiment en mars donc <laughs> voilà j'ai essayé d'en parler mais je crois que en global en fait le monde du digital est un peu en retard au Sénégal par rapport à ce qui se passe en fait dans le monde parce que nit ñi xamaguñu ko donc il doit y avoir une, une campagne de sensibilisation pour que nit ñi gën ko xam gën ko utiliser c'est pour ça qu'on est vraiment à ce thème de transformation digitale là pour permettre aux gens en fait de d'aller dans le en fait euh, tous les atouts que ça a. bien sûr euh, Betty xam naa ni malheureusement sànq suñu euh, problème de communication bi moo tax suñu temps bi daal di a gàtt mais prochainement mm-hmm. incha allah xam naa nag la invité plateau bi comme donc maa ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax si invitation bi ça a été vraiment un plaisir pour man de ñëw wuyu seen invitation et de partager avec vous en fait mais samay xalaat en fait si si digital ak tout ce que je fais. merci beaucoup di sant aussi ne ñoo ñu doon seetaan je vous en prie. merci merci beaucoup Fatou Sidibé bi daal di fàttali c'était euh, Biti Diouf Ndiaye moom moo nekk ab ingénieur DevOps en même temps founder waxtaanal CEO ou bien PDG Dinax Digital Agency fii ci Sénégal donc Biti Diouf euh, merci d'avoir accepté suñu invitation dafa waxoon ñëw fii ci plateau bi mais malheureusement il n'a pas pu prochainement incha allah merci à vous deux merci si waxtaan bi ak merci képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan suñu Label TV. merci mbokk yi nga xamante ni ñoo doon ñoo àndoon ak ñun ci suba ba tey di leen joxe di daje ëllëg bu soobee suñu borom merci beaucoup Aline merci euh, Willy Sadio Diallo mi bañ euh, réseaux sociaux yi maintenant merci Biti Diouf Ndiaye nekkoon euh, suñu invité tey donc mu nekkoon nag jigéen boo xamante ne wala mu nekk jigéen boo xamante ne rek day liggéey ci domaine boo xam ne mun nañ ne góor ñi lañ ci gën a gis mu nekkoon occasion pour ñun ci weeru mars bi gën a wan jigéen ñi nii rek am na métier yoo xam ne ñu ngi fi et que jigéen ñi aussi am nañ ci seen place xam naa du yàgg dinañ ko dalalaat ci suñu plateau ko defee rek gën a mën a waxtaan ak moom ah, ci domaine boobu donc remercier téléspectateurs yi àndoon ak ñun ah, depuis 8 ans donc dañu leen di jox dig daje demain incha ci ah, beneen matinale euh, d'ici a portez-vous très bien et restez connectés au programme de suñu Label TV ñu yendoog jàmm